jëf dafa am mbir muñ doon laam-laamee démb Assane Diouf dana ñëw am du ñëw l'observateur moo ko bindoon am ñenn ñu jóg di ko weddi l'observateur xëy benn mooy Assane Diouf moom ci jëmi boppam na ko l'observateur yi eh, l'observateur xëy na ko publier Assane Diouf ay kàddoom ci xët mu ko yéenekaay bi muy xamle ne muy procureur di président de la république euh, ñoom ñëpp amu ci kenn koo xamante ne ji moom Assane Diouf yëgal na ko yëgal na ko yaramam je m'en fous la ko waxee Assane ne bis bu wàccee aéroport Léopold Sédar Senghor Youssou Ndour groupe de presse moom lay njëkk a defal affaire ndax bokk na ci ñi ko gën sonal bokk ci kilifa yu Sénégal yi nga xamante ne ji Assane nee na ñoo ko jiñ wàllu terrorisme ba tax ñu daat koy rapatrier loolu lépp moom Assane Diouf wax na ko fa dem na sax ba naan muy Serigne Bassirou Gueye bu leen neexee nañ ma tabaxal prison boo xam ne man dong maa fay nekk man faalew leen ci luñ mën di def Assane Diouf ci xët mu njëkkam mi ngi toog ak kiñ ne jabaram la benn doomu Amérique la Assane di xam le ne léegi wax ji leer na dana débarquer fii ci euh, Ndakaaru Euh, àllarba jii di ñëw deux heures du matin laas moom it loolee la xëyee Assane Diouf dinañ ko indi Dakar amul dara luñ ciy sikki sàkk léegi dana ñibbisi deux heures du matin mercredi ca lay ñëw bu ñëwee fekk ñu bëri di xaar mu di ca kaso ba le quotidien xëy na fa dem mbaye gi yoon dafa ñëw ñun ci ay xayma yoo xamante ne def na ko jugee ci waa asrat benn association boo xam ne day taxaw ñi caabi féeti ginnaaw di leen taxaw ci biir kaso yo ci biti li muy xam ne moo di anam yi ñuy tëjee gars yi na waar cellules yi baaxul yi mooy loolu boole ceekit bu ñu feebaree ni leen war a taxawoo te nee nañu Sénégal yëpp maladie chronique la ñu amee maanaam ci gàttal jàngoro bi ñu amee dafa laaj ñu leen di taxaw même bu nekkee ci kaso keneen ku nekk ci kaso te ñuy wax ci mbiram moo di Khalifa Sall l'observateur moom moo ci xëy ak lu aju ci lettre boo xam ne moom maire bu Dakar bi bind na ko doyen des juges mu di juge Samba Sall di ko ci wax ay droit di ko fàttali boppam comme député la léegi amuñu fii ci Sénégal yoon ak li mu santaane mooy député du ñu koy juge Vox Populi xëy dalal Moustapha Cissé Lo moom Moustapha Cissé Lo waxtaan wu bëri euh, waxtaan wu yaatu koon séq na ko ak journaliste yi lu aju ci mbirum kan mooy jiite ji euh, fële nga xamante ne moo di assemblée nationale Moustapha Cissé Lo nee na bu ñu waxantee dëgg li mu gis ne moo war am mooy kii doon président assemblée nationale ci ñoom seen parti mu di APR ca la war bokk leneen nañ coowal ngi loo xam ne enquête moom it moom la xëyee Pape fa la ñuy jeexale moo di groupe parlementaire yi ci assemblée nationale kan moo ko war a jiite ñi fare ci nguur gi ba tey jubawuñu ci njiit ñi ànd ak Abdoulaye Wade mu di manko wattu Sénégal kon coalition gagnante jubawuñu ci kan moo war a jiite tax enquête xëyee ko tuddee ko l'énigme du capitaine Pape capitaine nga yooyu ñu ngi lay gërëm bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye ci revue de presse bi replay bi ci youtube bi slash tfm wala ci euh, jotaayu xibaaru diggu bëccëg gi ci télévision